maa ngi tudd Ami Diop. Ami Diop Ami Diop waaw. foo dëkk fii nga dëkk. fii laa dëkk waaw. Dakar nga juddoo nga yaroo. Dakar la juddoo fii laa yaroo. mais man portuma plainte kenn. <laughs> Adji Sarr sama employé la woon fii la doon liggéey. moom depuis nga commencé liggéey fii. man liggéey koy liggéey ma arrêté ko. après bu ma ko arrêté si la ñëwaat mu commencé waat sama liggéey. ban période la. ban tali war loolu mi ngi ñëw fii ay euh, après avant décembre la fi ñëw la fi ñëw. donc bi mu fi njëkkee ñëw quoi période. bi mu njëkkee ñëw période boobu de xaw na yàgg de parce que toogaan na 6 mois doo commencé waat fii. Hmm. actuellement dafa mi ngi liggéey ak yow toujours wala dafa bàyyi. non non parce que moom jour bu mu waree def euh, heure bi mu def nii parce que fii sonk da doon ñëw ci kër gi. Sonko da doon ñëw ci kër gi Sonko ñëw ci kër gi. dimanche wu hmm. mais Sonko xaw ma ci moom lu bon lu ma xam ci moom buy ñëw benn massage lay santaane sama ginnaaw day metti bu ñëwee du sax maanaam massage bi seize lay nekk day toog def nii ñu massé ko ginnaaw buy ñëw nan lañuy bañ a xàmmee ni massage xàmmee nañ ko léegi suy suy ñëw day bañ masseuse yi xàmmee ko day jël benn yére def ko ci kanamam bu ñëwee bu jëlee ba def ko ci kanamam day toog pour maase wu mësuma gis mu maase wu mu mu sumee ko lu ginnaawam lay maase. Hmm. léegi Adji Sarr man maa ko boole ak ko pour mu koy maase. comprendre nga. Hmm. bu mu koy commencé di maase di maase ba benn jour Adji Sarr am ku mu doon waxal téléphone. ne ko man de temps yi damaa damaa aat parce que may mantu may may maa si président Sonko. Hmm. kooku ne ko dama bëgg ñu teg ko diin. ah su ñëwatee ci kër gi yëkkati sa téléphone nga woo ma te nga fexe ba nga am ci moom benn expert wala nga def nangam ak nangam comprendre nga. benn lan.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 ndax mën comme mën na dem ba <laughs> yegg foofu euh, est-ce que dafa am client yu yegg yu yegg foofu ak euh, marché bi wala loolu amul fii fii institut de beauté professionnel la soo fi dugg si boo dugg si si kër da ngay xam ne fii place liggéeykaay la su ma ubbiloon salle ba mu dugg si salle ak climat ba nga ba nga ba dugg si salle nga toog da ngay xam ne place liggéeykaay la. léegi lu tax moom moom moom aji mu mu mën a yegg à ce niveau là. waaw da ngeen fexe gis aji ngeen laaj lool. aji fu xaw ma ko. léegi yow danga naan na liggéey bàyyi la moo taxoon mu bàyyi. dafa am lu ñu ma waxoon ci moom ma ma njort ko. ma ma dàq ko mën a fen. tey jii yow boo toogoon ak moom sa téléphone dina fexe ba rocci téléphone bi xam na si biir portable. c'est-à-dire que kon professionnel loolu quoi. non non. loolu kon nga jëlaat ko. ko bàyyi ko ay audio day jël di transférer nit yooyu laa gisoon si moom bu poolee ba pour man changer na.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 mooy indaale benn forotem nga diwal ko si ginnaaw gi mu dem loolu laa xam ci moom. d'accord depuis affaire bi kon affaire bi mardi passé la n'est-ce pas. mardi passé waaw. diggante boobu léegi ñëwaatul euh, yaayu amul dara lu ci lu ci beesaat ci diggante bi. à euh, li ngeen ban jour ngeen dem gendarmerie.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 fii dafa prof dafa am dafa am salon maa koy tëj salon baa ngi nii fii massage moo fi gën a tuuti liñ ciy def moo gën a tuuti liñ fiy def kon fan la viol bi am viol kenn la viol nga yuuxu mais viol ci biir kër mën naa am kon si bit la mais du fii hmm. du wax na tamit ne ne que Sonko bu doon ñëw de yore ay arme ak affaire si biir kër gi musta am heure bu ñëwee maa koy tijjil.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 tonifiant. Mm-hmm. mooy dëddoo léegi bi affaire bi amee ba léegi tamit amul euh, kenn ci euh, Sonko wala ñu ko jege ñu ñëw fii laaj leen wala leneen. loolu sama micro la. Hmm. Euh, Ndeye Khady Ndiaye moom bi nga xam ne jamono yi ñu bari ñi ngi koy dégg moom coow moom xale bu tudd Adji Sarr boo xam ne dafa tuumaal kii di Ousmane Sonko. Ndeye Khady Ndiaye nag moo nekk patronu aji Sarr Ndeye Khady dama bëgg nga nettali Sénégalais yi lépp lu xew ci coow loolu ci début bi ba ci fin bi ndax jamono yi sax yaa ngi hôpital ak sa doom yoo xam ne dafa juddu ci prématuré nga expliqué ñu waaw Pape Alé bala maa expliqué kenn damay nuyu waa Sénégal yëpp di leen masuwu si euh, problème bi am parce que euh, problème bi bu amee ba léegi lu nekk dégg naa ko ñaareel ba tamit maa ngi sama communication bu njëkk parce que wolof Njaay nee na lu la bett dina la man parce que daf maa bett te ma interview musuma ko def sama àdduna te bëgguma woon tamit sama tur dugg ci biir internet bi parce que innocent xaw ma yooyu liggéey rek laa xam ñaareel ba man Adji Sarr moom sama élève la sama kër lay liggéey foofu la doon liggéey bu mu fa nekkee nag. man Adji Sarr musuma ko booleel na ko yow yaay maase Sonko tout le temps amul dafa ñëw rek tombe si mu war a dugg cabine tombe si Sonko bu ko maase yoonu bu njëkk boobu nag ba léegi amul jàmm maase na ko si sama kanam avant may accoucher 31 décembre laa accoucher maa ngi accouché benn hôpital bu ñuy wax Gaspard Camara bi ma accouché sama doom bi juddu nekk prématuré foofu amuñu verre ñu indil ma ko hôpital Fann pour ñu dugal ko chivert pour xale bi mën a noyyi bu baax parce que dafa am problème mu noyyi ma ba léegi may wax ak yow ni maa ngi fii hôpital Fann aji saar ma bàyyi ko su kër ga 31 décembre laat fa bàyyi si guddi parce que bi ma amee doom foofu dinaa daan ñëw sa kër ga nag léeg-léeg di sangu di ñëwaat ci hôpital bi léeg-léeg Adji Sarr bu mu maasee Ousmane Sonko ba léegi booba sama jëkkër moo nekk ci kër gi ak sama doom bu jigéen ak sama jàng ak beneen fii ba bu mu commencé bi léegi aji saar amul jàmm sama jëkkër ñëw na benn jour fekk ma si hôpital bi dama indil añ ne ma waa ndey xadi ma ne ko ma man de jombi naa ma ne ko ah munu man aji daf may laaj sonk rek chaque jour munu ma sonk moom kañ lay ñëw kañ lay ñëw ma ne ko ah munu waa ma ko loolu moom kéemaane na di mais sama xel mu sa xalaat lii si àdduna parce que pour man amul fitam léegi mu nekk ci loolu nekk ci lool ba benn jour am sama benn client naar bu ma envoyé message par whatsapp ne ma je suis devant la porte fekk boobu jour boobu médecin bi mi ngi faj sama doom bi mënu ma wax téléphone ma jël message ba ma capturé ko ma envoyé ko aji ma ko envoyé message bi nag waxuma ko nekko ko diw la waxuma ko ne ko laala dama ko envoyé message bi rek pour mu génn dem ubbil client bi mu dugg aji yéex a gis message bi moom client bi tamit taxaw ci otoom kenn ubbilu ko mu dem muy naar bi aji gis message bi bu mu gisee message bi foone Ousmane Sonko moom moom message bi bu Sonko moom moom message bi booba naar ba dem na mu woo ma jëpp am ku woo ne ko Ousmane dina ñëw tey ci kër gi parce que patron bi envoyé na ma message ne ma Ousmane Sonko dina fi ñëw parce que moom su waxee ne loolu rek day ñëw kooko ñëw ci buntu kër gi ay 19 parce que naar bu may envoyé message mi ngi nekk ay 19 heures yooyu nga tombeet aji nag am na ku mu woo ne Sonko day ñëw tey ci kër gi mën nga ñëw kooku noonu ñëw ci buntu kër gi mu toog bu mu toogee sama jëkkër ñëw indil ma reer ma reer ba pare mu dem ñibbi diggante vingt ak dix neuf heures fekk waa ji toog ci buntu kër gi mu ne ko sëñ bi fii de place su liggéeykaay la te heure bi sax heure couvre looy def fii mu ne ko maa ngi jéggalu déplacé wu dem taxaw ci buntu guduret bi bu mu taxawee foofu sama jëkkër duggaat ci biir kër gi. Dakar matin génn di jëndalaat sama doom bi meew. fekkaat waa ji si porte bi mu toog mu del ko dàqaat muy deux fois sama jëkkër jënd meew ba pare duggaat ci biir kër gi jàll boutique woo ko téléphone na ko ku nga doon ku ma doon séen nga koy dàq ñëwaat na taxawaat ci ko yow kanaa tëjoo vingt et une ko maay ñii si kaw piraab dama doon bàcc samay kilot sama jëkkër génnaat bu mu génnaatee fekkaat waa ji ci gardien gouverneur bi di ko dàq parce que gardien bi dafa nekk sama xarit jëkkër man mii sax dafa ma respecté ne ko fii place kay la loo fii def ak loo bëgg mu ne ko man résidence membre bii nekk dafa am ku ma yónni mu dem sama jëkkër woo ma téléphone expliquer mu ko ma ne kon de am na lu bëgg a xew mais lan la fii est-ce que yónni ko mu def dara si cabine bi mu ne ma en tout cas daal lii moo xew. ma ne ko guddik tay nag bul nelaw defal tout ba kou laal porte bi nga jóg mu ne ma waaw aji dina si kër gi ti wër wëri léeg-léeg mu ne tonton Ibrahima ma ne ko su woowee rek pour wuyu pour nga xam mais booba ñun xamaguñ li aji di di di programme surtout xamoon li yëpp du am léeg-léeg mu ñëw def pour bëgg xam ndax Ibrahima nelaw na wala nelawul bu mujj gi mu dem tijji porte bi bu mu tijjee porte bi ànd ak waa juróon Ibrahima doon dàq mu dugg ci biir kër gi bu mu ci biir kër gi visite kër gi ba kër gi daj Ibrahima ngi xool de mais waxu ko dara Ibrahima dama kii faaliwu ma mais ragal na nday xaj xaar ma nday xaj su ma ko wooyee nday xaj dina ko wax dëgg parce que mën naa ko woo mu fen ma man ti ma woo ko ma ne ko aji naam xooluma sax caméra dama ko piégé rek jàpp ko ma ko sànq sama téléphone dama xool ci kamera bi gis nga ànd ku góor dugal ko ci biir kër gi mi visite mu ne ma sama xarit la nee na daa war a ñëw ci kër gi mais nee day visite kër gi ba pare ma ne ko une heure du matin sa xarit ñëw ci kër gi heure bi aji mu ma naa ma ne ko aji looy programme mu ne ma temps final pourtant du dara dem ma ne ko ah mu ma waa ma ne ko lu loxo lay nàcc ma sama téléphone loolu mi ngi xew lundi. bu sedd mardi Sonko ñëw rek sone ci porte bi man boobu maa hôpital Fann yore sama doom Sonko ñëw rek sone si bi bu mu ñëwee sone fekk fa sama jëkkër ak sama doom bu jigéen ak élève bu fa accompagné Sonko ak aji ak sama jàng xanaa kër googu xaw naa am ay nit aji mi ba mu ubbil Sonko ay vingt et une heures pile la Sonko dugg ci kër gi mais Sonko bu muy génn kër gi vingt deux heures la génn kër gi pour sama explication bu njëkk ba dafa defalee parce que dama tiitoon bu mu Sonko duggee ci kër gi sama jëkkër yëkkati ci am mu woo ma naan Ndeye ma ne ko naam mu ne ma xam nga ne Sonko mi ci kër gi ma ne ko waa mu ne ma waa ma ko ba léegi sax tontu ma ko pour yàkkamtee jot aji ma coupé ko aji. parce que dix minutes mënuma jot aji mu nekk en communication ma ne aji lu mën a dugalee client di téléphone nii ma sonn si pour occasion jot ko ma ne xaaral ma woote samay annonce parce que élève bu bees boobu ma ngi fay ñëw bees numéro am sax lu ma ci enregistré ma woote samay annonce jot élève bu bees bi ma ne ko ana Ousmane Sonko mu ne mu ngi bi moom sax nee na dafa yàkkamti mais aji man ngi sa ba di wuyu téléphone sama xel mi ñaaw ma ko defal tout xamal ma li aji di wax demal sa ruq ba nga déglu ko ndànk mu dem sa ruq ba taxaw ci ginnaaw dégg aji naan sonko de dugg na ci kër gi mais dootu ko defati man ngeen a départ ngeen ñëw bala ngeen a yegg si da ngeen fekk ñu pare. Dakar matin. xale bu jigéen bi tamit def erreur parce que moom comme que wax naa ko ne ko xoolal ma avant ma koy boole Sonko muy dugg def ma a wax lu mu dégg mais waxuma lu mu dégg de parce que daf na su paree dina ma expliquer lu xew parce que su ma waxoon lu mu dégg jour boobu noonu aji du laal Sonko te jour boobu noonu Sonko daa ko wax na ko jëlal sa produit nga dem ñibbi mais xale bu jigéen bi expliquer lu ma loolu moom dégg na loolu mais expliquer lu ma ko. léegi bu ko defee ma woote waat nag maman ma naam ma ne ko gaawal nga xool aji bu fekkee parle wuyu téléphone loo dégg mënu ma après dinaa la expliquer temps si naa ma loo dégg mënu ma bàyyi rek suñu paree ma expliquer la ma ko dem leen ngeen def ko 4 mai comme que moom ginnaawam rek lay maase du fi yàgg waaw ñu dem dugg def ko massage 4 mai tonifiant ba massage bi pare aji wax maman ne ko may ma. maman moom génn parce que moom pare na te moom programmé wu dara mu génn toog bu mu génnee toog aji toog si kanam mu génn moom bu mu génnee ñëw fekk sama jëkkër bi si biir néeg mu toog mu yëkkati cinquante mille jox ko sama jëkkër bi sama kër massage quatre mai cinquante mille la sama jëkkër bi jël xaalis bi aji dem ubbi frigo bi génnee lekkam yi nga xam ne résidence Mamour la doon jugee temps yooyu ba dama doon koy kaañu na ko résidence Mamour sa lekk fa lay jugee ku la koy la aji ponkam nga mu ree bu mu ubbee frigo ba mamaat moom mi ñu topp action ngir lu ma ko waxoon ne ko ba jox information bi si aji bi fekk aji kër gi yëpp téléphone am dafa amul problème mu écoute iPhone la yoroon six plus la ay la aji yoroon mais dafa amul problème mu écoute aji suy wuyu téléphone si biir nit musu koo def day daw wuy wuyu sa kaw parce que téléphone su ko deful mais libre du xam lu waa ji wax du xam ku muy téléphone lu muy wax léegi aji taxaw ci buntu frigo mama ñëw taxaw aji am ku ko woo téléphone ne ndax pare nga mu ne ko waaw mu ne ko la wax si moom nga trouvé ko trouvé ko maman nag oui ou non xaaru ko fa rek maman ne ko ay aji aji looy programme aji lan nga aji yëkkati dix mille francs jox ko maman maman ba du ko de ne ko yow kanaa dangaa a liggéey sonko pour mu takk la mun ko bàyyi mu seet aji tegaat téléphone ba ubbiwaat tabin ba Sonko pare solire mu génnee ko mu dem bu ko génnewee mu dem fekk avant sonk di ñëw ci suba gi aji xëy na suba teel dem seen kër bu mu demee mu ne yaayam dakaa yóbbu hôpital parce que yaayam dafa gis kanamam di changé mu yóbbu ko hôpital mu def test de grossesse yaayam na ko dangaa ëmb yaayam jël test de grossesse bi na ko dama koy dénk sa papa laa koy yóbbu aji wax ma loolu ma ne ko indil ma carton bi ma xam am preuve su yaay amee preuve ah carton boobu yóbbu naa ko brigade de recherche mooy si suba gi affaire Ousmane Sonko bi si guddi gi la xew si suba gi aji déclare na ëmb si biir kër gi ba ñëpp yërëm ko muy ñëpp di sama jànk bi sax daloon jooy ngir yërëm ko ak maman bi nga xam ne moo ci kër gi ngir yërëm ko jamono yu Sonko demee nag ba pare aji déclaré waat ne moom yaayam daf ne ko. na dem kër ga parce que day dindi ëmb bi mu wax ko sama jëkkër sama jëkkër na ko ana Sonko dem na mu ne ko waaw mu ne ko comme que nga ne yow da ngay dem seen kër sa yaay dindi ëmb bi wool nday xadi ba pare aji yëkkati téléphone mu woo ne ma temps final final la may wax man de lu mu lay wax si suba sama yaay nee damay dem kër ga dindi ji ko ma ne ko ay aji ragalal yàlla mu ne ma damay dem kër ga di ji ko ma ne ko yow instant bii vingt trois heures jot na parce que tijjil na Sonko lu yàgg Sonko ñuy génn vingt deux heures vingt trois heures jot na aji nekk ci biir kër gi di dugg ko génn di dugg génn di wàcc di wuyu téléphone si kaw terrasse bi di dugg ak a génn kanaa kuñ vewe kay loolu yëpp doo ko tal kanaa kuñ vewe doo nekk ci kër gi lekk ba suur naan ba màndi ah génnee sa saak jël ay yëre ay vax mu ne couture bu muy liggéeyee ñoo ko ko jox kan mu may sama jëkkër ñaari vax ak benn cuub na ko jox naa ko sa doom bi kanaa kuñ fay la doo tal lool jour boobu ma ne ko aju fooy génn vingt trois heures bi mu ne ma dafa sama yaay dafa xam benn moto jakarta buy liggéeyee seeka caab moo may jël si ma ne ko seeka caab moom seen moto yi dañoo am autorisation pour génn mënuma waa am na lees a passé xawma lu ko expliqué noonu ma waa baax na boo demee daal lu si mënta am nag moo woo mais tuddul ma kenn de tuddul ma ay sonkaat tuddul ma lenn moom si mbiri boppam la doon wax mu dellu génnaat foofu demaat sama jëkkër gi ne man sax de ëmb bi duma ko dégg duma ko dindi parce que dama yàgg reer pour am doom ma ma coupé si aji woo sama jëkkër ji ma ne ko aji am na lu muy tracé mais def leen tout bu mu leen gën a muus nee na moto jakarta moo koy jël si sama jëkkër bi ne loolu la wax si kër gi ma ne ko toppal ma ko nga taxaw bu génnee nga génn ma delloo waxaat mama ma ne ko ana aji mu ne mi ngi nii di ay bagages mais aji de temps fi la lu muy nocc de suma su demee dinaa la expliquer parce que mayut ma ma wax ma ko ah mu ma waaw ma ko waa baax na ma ne ko léegi defal tout buy aji di génn na ma ko toppal ba xamal ma fi muy dugg nee na moto jakarta moo koy jël si maanaam waaw aji bu mu génn kër gi dafa yolleeku jël. di nax nit ñi di nax nit ñi ba suñu neex ba mu neex ko rek ñu mu këf saagam di dem sama jëkkër dégg porte bi rek teg ko ci seen nga ñu ko jël si bu ñuul ko moo jël si aji guddi googu moto jëkkër taa jël mi ngi taxaw di ko gunge oto bi taat bi ñu ko féetale ci goudron bi moo tax sama jëkkër mënut a gis marque oto bi kanam bi kes moo féetee mbedd bi aji ñëw fekk ñaari góor yi taxaw. mu dugg seen mu dugg ci biir oto bi yóbbu ko bu mu ko yóbboo si guddi mardi yi nga xam ne moom la sonk ñëw ci kër gi bët set di mercredi ay onze heures aji woo ma téléphone man ko yow kaa ñibbisee goo mënuma man de foofu laay añee tey sax man ko ah mënuma waa nekk aji bu may woo téléphone mi ngi biir police yóbbu na plantem te xaw ma ma waxtaan ak moom ba bu mu coupé rek si brigade de recherche woo ma téléphone ne man Ndeye Khady Ndiaye ma ko waaw munuma yaay yaay liggéeyoo ak Adji Sarr ma ne ko maa koy liggéeyloo sama kër Sweet Beauté munuma est-ce que man ngaa wuyu fii ko dama yor doom te munuma génn bu fekkee man ngeen ni mën naa ñëw pour ñu déglu man pare ma wax ko sama jëkkër sama jëkkër bi ne ma Adji moo def lii ma ne ko waaw avant. brigade de recherche wax nañ ma ne ma ndax xam nga Sonko ma leen waaw booba laa xam lu xew foofu ma waat aji ma aji yow loo def nii aji na ma temps finance sama papa moo ma dugal parce que man damaa ëmb sama papa génnee ma kër gi ñaareel ba maa ngi fii ma loo wax ji lu ma lay wax tontu ma ci loo wax brigade de mu ne ma sonk daf ma violé ma ne ko fan mu coupé téléphone du waxaat toog man. Miguel recherche ñëw attendre ma ma wax leen lu ma xam comme li ma wax nii lii laa si xam lii laa expliqué. Dakar Matin. ma woowaat ma dell demaat te bu tuur loolu Sénégal yi ma bu baax li may wax man xawma caaxaan te bu ma ko xam si àdduna sama institut di Sweet Beauté Spa du institut góor du institut jigéen institut pour ñëpp la am na jigéen ñoo xam ne. suñ ma déggee dañ xam bu baax li may wax sama insulté jigéen ñi ñoo ko ëpp luñ fay ñëw góor parce que du benn produit laay def massage moo gën a tuuti ci li may def sama insulté damay def massage damay def gommage du corps damay def pédicure manucure damay def soin de visage damay def épilation avec cire damay def pose ongle damay def cils kayit ba ñuy léttu parce que dafa am salon de coiffure bu nekk ci biir dara loolu yëpp mënut am ci kër foofa caaxaan dafa am institut de beauté suite beauté ana bu mag moo nekk ci buntu kër gi nga xam ne man nëbbatu ma te kuy foo da ngay nëbbatu kuy foo da ngay nëbbatu te ma xamal sénégalais yi ne Sonko bu muy bu muy njëkk a ñëw sama kër 2019 man parce que Seydina Mohamed ak lu ma yaakaar ci na yàlla bu ma ko yàlla suñu borom bi may jour boobu bi mu ñëw ñu ni fekk maa ngi toog ak sama jëkkër ñuy rendi xaram tabaski élèves yi dem seen kër sama loxo yi tax lépp deret ma ubbil Sonko ñu ngi sama téléphone fixe bi ma ko tëjjilee mu ne ma bi dafa niroo niroo Eumeu seen mooy institut Eumeu Sène ma ne ko ñu bëri dañ koy jaawale te képp ku xam numéro institut Eumeu Sène Eumeu Sène man sama numéro téléphone fixe mi ngi naa nekk 33 842 99 29 léegi képp ku xam numéro Imo Sène benn chiffre moo leen tàqale ñoom ñaar te barke Seydina Muhammad te mënuma xëy journée ba ngoon te wóoñ ma dima jaawale numéro Imo Sène ak sama bos Imo Sène donc jour boobu ma ko ubbilee mënuma fii du Imo Sène ma ne ko déedéet mu téye farate mii si loxoom barke Seydina Muhammad mu ne ma man sama ginnaaw muy nit ma ne ko élèves yi ma tee kon ma maas ko ginnaawam bi mu dem jour boobu noonu feeñu ma ko moom it waxuma dara mais xàmme naa ko te si kanamam lenn loo xam ne man war naa ko mën a taxaw ne moo def lii naa ci kanamam wallaay hanzim du question la dama koy défendre parce que xaw ma ko mais xam laa wax ku am fulla ak ku am fayda parce que am na jour boo xam ne dafa fekk sama jëkkër mu toog si salle bi mu jox ko loxo nii nuyu ko maa ngi toog ba léegi joxuma loxo mu ne ko yow damay gis ngay rek dinaa ay jàllaabe nga koy sol daf mu daf ku xam ne sa jëkkër mi ngi ci biir kër kooku dara viole nit ci kër ak fu turam toll ak fu turam toll ku xam ne sa jëkkër mi ngi gi muy ñëw di fa fekk léeg-léeg nuyu ko dina violoniste ci kër. léegi yow ba nga demee brigade de recherche ñu lay entendre lan nga wax parce que way yu waroo wala am na yoo xam ne ñoom binduñu ko ak ba nga demee ci confrontation ak ki nga xam ne moo di aji Sarr lan ngeen fa waxante. bi ma demee brigade de recherche premier jour bi ma toogee ku ma attendre daf ne du xam nga Sonko ma ne ko waaw parce que Sonko maa ko njëkk deux mille dix neuf deuxième jour bu ma commencé ngi tombé équipe nationale di football mooy seen coupe bu mujj bii ñu raté te xam ci moom lu bon ma expliquer ko comme li ma expliquer nii si ginnaaw benn par benn lu mu xeewee ak lu aji def phrase yëpp ma expliquer leen ko ñu bind ko. Dakar Matin. ñu dell ma woowaat man ak aji ñu toog bu ñu toogee ñu laaj ma ma jaar fi ma jaaroon. aji ba ma toogee ak moom dafa weddi woon ne oto jël si ko mais mujj ki dafa d'accord ne moom oto moo ko jël si parce que xam na ne am naa information te li may wax nii dafa leer parce que dafa war a leer parce que enquêteur bi li may wax si jot kon li may wax dafa war a leer dëgg lay bi aji ma ko yow aji mënu ma naam ma ba ngay génn kër ga du wax yow da nga ne woon da nga ba jooyloo ay si kër ga ñu la nga ne sa papa dalaa génnee kër ga sa yaay génne la kër ga instant bi xamatoo foo jëm neen dañuy dindi amul bi mais attendre fi nga toog de ak yaa ngi toog maa ngi toog ma posé question bii aji aji bëggoon a am dëgg pour génn kër gi te ñaareel ba dama bëggoon maa xam ne su ma la waxoon ne la nangam moo xew doo ma ma génn parce que booba dangay ngay foone damay dem massage à domicile ma ne ko aji massage à domicile vingt trois heures zéro heure kan moo la koy woo ba man may xelaat mu ne pat ma ne ko ñaareel ba aji mu ne ma naa ma ne ko dama bëgg nga taxaw fii ci biir brigade de recherche nga wax carrément sart yu ñuy liggéey ma ak yow parce que da nga bind plainte te da nga ndaw jour boobu ku ma mi ngi toog parce que ku ma attendre daf ma jóg na ma dama lay présenter dama lay euh, présenter dama lay présenter am na kenn benn bureau bu ma dugg pour ma expliquer ma kooku. far koog ak ñi dem sa bureau mu génn muy secrétaire bi ñu dem mu génn après mu ne ko maa ngi ñëw ci bureau bi kooku ñëw taxaw enquêteur bi toog ma toog aji toog secrétaire bi na yow Ndeye Khady Ndiaye yow da ngay def massage ay body body aji moo répondre répondre ma de aji nekk cabine boobu loolu amul fa ku dee ak sa bàmmeel Ndeye santul ma li ma def te bu xamoon du fa toog santul ma benn yëfi caaxaan parce que kii xam lu bon te loolu enquêteur baa ngi toog secrétaire baa ngi taxaw ma del na ko aji mu ne ma naam ma ne ko li def ku la ci dugal mu ne patt dugalu ma ci ñoom ñu ngi taxaw de ma ko aji sama kër yan type de massage moo fa am ñoom ñu ngi taxaw de mun leen lubrifiant a relaxant loolu moo am ci kër ga su ko mooy yëpp ay produit la ay gommage ay pédicure yooyu comme ni ma ko limee woon ma kon aji yow li boo fa defoon dara est-ce que ne man sant ma la ko mun ma mosoo sant bi lu bon ma ne aji yow premier jour ba ma la jëlaatee nga ñëw si biir cabine bi lan laa la wax sa saal ba munuma da nga ma na nga góorgóorlu te nga liggéey te nga moytu ay fen fen day taalam réew aji boobu waxuma la lii munuma yaa wax lii kay ma baax na. ñu woo beneen fii bi beneen fii bi ñëw mooy lu fa wax ñu yéen dégg ngeen ko bu baax mais man sama cadre bopp laay wax man sama cadre bopp laay wax aji dem ma dem ma dellu ñëwaat xam nga trois fois lañ ma woo ma dellu ñëwaat sama kër ay 17 heures dem di sangu wala ñibbi hôpital ba enquêteur bi waat ma téléphone ne ma dañ lay dégluwaat ma ne ko ah mënuma waaw ma jaar hôpital bi piire meew naka Ibrahima xaar ma maa ngi ñëw parce que dañ ma waat attend la mënuma waaw gaaw a tënk parce que xale bi sonn na de ma ma dem bi ma demee euh, brigade de ma dañ ma dem ñu teg ma si seize ba nangu sama portable Touré ma ci bureau ma ne ko Touré xew mënuma ah gis ne lii moo xew nee dañ lay fii ba lundi ma jël avocat bi ma jëlee avocat avocat bi na leen may leen ko mu dem hôpital bi tiire meew ñu wax ak bi ba xam xale bi dina mën a toog foofu noonu sans yaayam wala ma ànd ak sama avocat ak ture enquêteur bi ak man ñu yegsi bu ñu yegsee ñu woo docteur bu mag bi man damaa yegsi rek daw ak sama doom bi booba ñu ngi naan mi ngi fatt parce que xale bi génne nañ ko si weer bi sama biir bi si lay tëdd vingt quatre heures sur vingt quatre parce que loolu mooy tax du am problème mu nooyi parce que sept mois la juddu te bu muy juddu dafa damaa feebaroon ma daw rek këf xale bi boot ko taxaw benn place ba mu leer na ma ne xale bi ñu ngi si jaamu ma doog a dem wax ak ñoom ñu ne ana médecin bi. Dakar Matin. médecin bi ñëw ne leen kii doomam bi. mun a sori yaayam parce que xale bi prématuré la si veille la nekkoon léegi génne nañ ko si veille si biiru yaayam la koy teg vingt quatre heures sur vingt quatre mooy tax du am problème mu nooy ñoom ñu insisté ne xale bi nañ ko dugal ci veille bi ma dem te ñëw docteur bi ne moom de risque boobu du ko jël bu fekkee yéen ñi ko bëgg a yóbbu a jël risque bi bu xale bi jeewee ngeen jël risque bi. Touré na ma wàcceel xale bi dem ma ne ko sama doom du wàcc sama doom maa ngi ba kaso sama doom buy dee sama biir bi lay deewee mais duma ko wàccee Touré wax ba sonn ne kon maa ngi dem jëli commandant mu ñëw à jour boobu guddi googu sonn naa guddi googu am naa lu ma métti sama àdduna guddi googu nañ ma parce que guddi googu la sama téléphone bi di wàcc ba zéro ñu may woo téléphone ñi naan quinze millions nga changé version bi nga wax ne Sonko moo violé xale bi damaa bëggoon a sama institut may leen dee moo ma ko gënal parce que mën naa am doom boo xam ne mën na taxawee fu Ousmane Sonko taxawee bu ëllëgee lu ma def Sonko lañ koy def kon du question dama jàppale Sonko de dama wax sama diggante ak yàlla suñu borom dama wax sama diggante ak lu ma xam mais duma ko fàtte ba koro yomal xiyam guddi googu dund naa loo xam ne sama àdduna su ma amutoon fit parce que Seydina Muhammad sama doom bi waxuma ne ne duma ko ñàkk de parce que yàlla moo yor bakkan doom aadama mais da ngeen dégg leneen guddi googu Touré bàyyi ma fa sama avocat mi ngi taxaw dem jëli commandant commandant ñëw gaare otom ne naa wàccee xale bi sama jëkkër yi taxaw médecin yaa ngi taxaw commandant ngi taxaw kuma enquêteur baa ngi taxaw maag ñoom maag ñoom ba vingt trois heures ma taxaw rek sama doom bi lekkul xiif trop ñu ne ma naa wàccee xale bi mën na leen du wàcc mu gërëbal ma ma naa wàccee xale bi mën du wàcc xale bi bu ngeen may tëj da ngeen may tëjaale ak moom parce que xale bi sama biir bi la war a nekk daa génn rek mais heure am jotagul comment daa dem ne waa garaawul léegi mu dem bu mu demee ànd ak enquêteur bi ñu indi ñaari ponkal quatre personnes quatre quatre yoo xam ne nii ñaaran ci suuf ñaaran ci kaw salle bu may kangouré bi bu mag la woon boo xam ne. Dakar am na ku fa am doom ñetti doom am na ko fa am doom benn pël bu ñeenti doom am na keneen ku fa nekk ak man maa nekk ci digg ba ñun quatre personnes ñu ngi ci salle bi kenn ku ne ak sa lal ñu yebal ñaari ponkal naka ñu ne ko suy wàccee xale bi rek. na ngeen ko jël Pape Alé guddi googu sonn naa su may sawi damay toog donkal ba xale bi nee nañ du dugg ci duus ñetti fan ñu ñu teg ñu teg ma coono googu ñetti fan yàlla ñu teg ma coono googu damay tëdd bu guddi war a nelaw mu wàccee xale bi foo nee dem nañ damay toog rek ñu dend ak man okk ma ne ma ñu ngi ñëw tiim la damay xool gis leen ci porte bi ñu taxaw pour luñ ma këfee yóbbu bàyyi fa xale ba Pape Alé lii li ma gën a ba ñetti fan yàlla yu mat ñu may xaar su ma la bëreet ñu la bëreet su may lekk dañuy taxaw timb sangawuma ñetti fan dawuma duus pour mën dem kabi mais bàyyi na lépp ak yàlla suñu borom bàyyi naa lépp ak yàlla suñu borom lii laa amoon li yi pour ñu déglu ko bu baax li dund lii laa dund que xeet yi dëgg la ne am na ñoo xam ne dañ la doon xaalis pour nga changer version. barke Seydina Mouhamad ku ma njëkk a woo WhatsApp ma woo ay chiffres yoo xam ne numéro boo xam ne xaw ma numéro Sénégal la xaw ma numéro Europe bi ma woowee na ma 15 millions nga changer version ma ne ko mënul nekk numéro ba dama xool a gistu ma xaw ma fu mu jaar deuxième fois bi maa ngi ko capturé moom ba moom bettu ma lañ ma woo. ma capturé ko mi nii sama téléphone ko quarante millions la wax man du ma changé de parce que booy changé kon fenkat ngay doon parce que man li wax du lu ma loo xam ne dama ko inventé man li ma wax loolu laa gis te loolu moo am loolu moo am mais bàyyi naa lépp ci loxo yàlla suñu borom dénk naa sama bopp tamit yàlla suñu borom loo am rek ma xam ne yàlla la Pape Alé lii laa amoon li ma la expliqué pour Sénégal yi dégg ko xam man lii laa dund. Ndeye Khady maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax jërëjëf. merci beaucoup Pape Alé.